الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي يسال سنت سن بروم ñi nga xam ne moo ñu wërsëgalaat ñu daje tey ci am néegam fa séenee jël benn bind ci wàllu fiq ñuy sukkandikoo suñu téere bii di risaala bu ibn abi zayd al qayrawaani rahimahullah ñu ngi tolloon ci baabun fi salaam wal istizaan mi ñeen fukkeelu bunt bi ak ñett ñu jotoon caa jël ab bind ba yegg si tey jii ci fi muy waxee qaala muaz ibnu jabal ma amila ma amila aadamiyun amalan bu dee ñu yore traduction bu xonq bi yaa ngi page cent vingt et un bu dee yow mi yor samarudaani bi yaa ngi ci page sept cent ci troisième ligne bi qaala muaz ibnu jabal maa amila aadamiyun amalan an jaalahu naam ba dee gis nañ ko it tey mooy fukki fan ak juróom benn naam ci am fukki fan ak juróom ñaar waaw fukki fan ak juróom benn naam ci la nga xam ne mooy weeru rajab di tombeek le 28 février ci 2021 su dee dañuy jël sunu bind bu jëkk qaala muaz ibnu jabal maa amila aadamiyun amalan muaz day nee na benn doomu aadama jëful benn jëf anjaalahu min azabillahi min zikrillah jëf bu ko mën a musal ci mbëgalu yàlla jëful ca lu mel ni fàttaliku yàlla wa qaala umar afdalu min zikrillahi bil lisaan la gën ci ñuy tudd yàlla ci làmmiñ day zikrullahi inda amrihi wa nahyi mooy ñuy fàttaliku yàlla ca ndigalam ak tereem wa min du'aa'i rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi bokkoon na ci ay ñaanam kullama asbaha wa amsa heure bu masaan xëy wala mu daal di ngonnal allahuma bika nusbixu ay yàlla ci yow day ay ci sa kattan ca la ñu xëyee wa bika numsi ci sa kattan it ca la ñuy dugge ca ngoon ga wa bika naxya ci yewit la ñuy dundee wa bika namuut ci yewit la ñuy deeyee wa yaqulu fi sabaax wa ilayka nushur bu dee ci suba gaa da koy tëjee ci yow la ñuy tasaare jëm mooy ci la ñuy génnee ci suñ bàmmeel yi tasaaroo jëm ci yow wa fil masa wa ilayka al masir bu dee ca ngoona mu daal di ne ci yow la ñuy mujj mi ngi noonu waaw kon mbokk kii day bokk na ci lu muy tëje téereem bi fàttaliku loo xam ne ay ngëneel la ma bokk ci ngëneel yooyu li nga xam ni Muaz bi wax na ko Muaz ibnu Jabal ci ndaw yi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon mi faatu ay trente et quelque ans la am donte ne yonent bi daana wax bokkoon na ci ñi gën a xam ci yéen lu dagan ak lu tey ma lu dagan ak lu xaraam Muaz moomu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na doomu aadama li koy muccal ci ay jëf amu ca lenn loo xam ni gën naa gaaw gën a wóor lii di zikrullah loolu moo tax ba moom moomu di Muaz ibnu Jabal yonent bi newoon na ko Muaz man day dama laa bëgg bul fàtte heure boo jullee ba pare nga ne allahuma a inni ala zikrik ay yàlla yal nag ma jàppale ba ma lay mën di fàttaliku wa ala shukrika ak di la mën di sant wa ala xusni ibadatik ak di la jaamu-jaamu gu sell loolu ku nekk ci ñun war a góor-góorlu di ko ñaan gannaaw julli gépp yàlla yàlla nag ma dimbali ba ma lay fàttaliku di la sant di la jaamu-jaamu gu sell loolu mu ne dara gënta musal doomu aadama bi ci mbugalu yàlla bokkoon na ci loolu yonent bi alayhi salaam di wax naan ki nga xam ne la mujj a wax mooy laa ilaha illa allah bu dee day tabbi aljanna yal na yàlla yombal ko ci ñun allahuma kii du omar ibnu alxataab gannaaw ba mu xamee ngëneelu zikrullah te zikrullah mbokk ñett lay lay lay amee mooy zikrullah ci sa xol doonte ne làmmiñ bi yëngatuwul fay xalaat ci kawtee fi borom bi ak ndigal yi tere yi di ci xalaat gannaaw ba di tudd yàlla ci sa làmmiñ muy ñaareel ba ñetteel ba nag mooy sant yàlla ci say cër sant yàlla ci say cër loolu la Omar di wax fii zikr bi gën a màgg ma yow jullit heure boo déggee xoolee xam ne kat julli jot na loo doon def nga bàyyi ko dem julli ji sant yàlla ci say cër bokk na ci boo waree dem màkka nga dem màkka boo waree def bét bu jaamu yàlla nga def ko waaye tudd yàlla ci say cër it bokk na ci heure boo nekkee ci lu xaraam nga téye sa bopp loolu kon dañuy gisee kon waa ji xëyoon tey laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah làmmiñ bi du dagg ci laa ilaha illa allah mooy kaddu gi gën waaw léegi julli jot na mu bañ a julli laa ilaha illallah laa ilaha illallah koor jot na wóorul laa ilaha illallah laa ilaha illallah mbokk ndax kooku laa ilaha illallah boobu dana baax ci moom laa amalu ko benn njëriñ looloo tax zikr bi gën a màgg ci zikrullah mooy taxawal ndigal yi looloo tax Muusa alayhi salaatu wassalaam suñ borom ne ko aqimi salaata li zikri bokk ni zikr bi gën mooy taxawal julli mi ngi noonu loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax muy wax nag lenn ci zikru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bari na lool ndax moom moo gënoon ci ni ñuy tudde yàlla sallallahu alayhi wa sallam daan tudd yàlla fu mu mën a toll place bu nekk it dafa daan wax la méngoo ak moom te loolu it mooy la gën ci zikr place bu nekk nga wax fa la fa yeeyoo mu ne bu ma seen xëy da daan wax naan ey yàlla ñun dey ci sa kàttan lañu xëyee te sa kàttan lañuy ngonnale ana ñaata doomu aadama ñoo reer ba regg waxtaan ak seen jaboot tëdd nelaw yeewuwuñu ana ñaata doomu aadama ñoo yeewu a xëy doxi seen soxla nibbiwuñu seeni kër kenn xamul ñaata ci doomu aadama kon boo xëyee ci kàttanu yàlla la soo ngonnalee ci kàttanu yàlla la gannaaw ba yàlla moo lay may kàttan gi nga dundee moo ko dund kàttanu yàlla la bañ jugee ci jàkka ji ba léegi suñ xel nekkul sax ci noyyi ñaata yoon nga noyyi ci biir jàkka ji sa xol bi ñaata yoon la la pompeel sa deret gi tasaare ci biir yaram bi ana ñaata ci ay cellules ñoo sosu ci sa yaram bi loolu lépp kàttanu yàlla la déeg it mbokk dee déeg yàlla la yàlla mooy rey ku ko neex kenn du dee ci sa dee jotut gannaaw ba it mu ne ko yàlla ci yow la ñuy xëy bu lan la ñuy génn di tasaaroo mooy nit ñi bu ñu génnee seeni bàmmeel ñoom ñépp ñu ngi riir jëm ci borom bi jalla wa ala maadaama bu ñu xëyee suba dañuy tasaaroo ñee jëm ci usine ba ñee jëm ca tool ya ñee jëm ca hôpital ya ila axiri non nit naka noonu doomu aadama bi lu mu yàgg yàgg da nga mës a xëye sa bàmmeel génn jëm ci sa waroom gannaaw ba it doomu aadama yi seen mujj waay mooy ci seen borom ndax am man ngaa jaar fii jaar fee dee ñu dugal la biir suuf waaye gannaaw ba lañ lay génne taxawal la sa kanamu boroom lii mooy la nga xam ni rasul sallallahu alayhi wasallam daana ko ñaan heure bu xëyee te mooy ñaan goo xam ni lépp yëg-yëgu kattanu borom bi la yëg-yëgu sant yàlla la su dee dañuy jël beneen bind mu ne wa ruya maa zalik soloo nañu ànd ak zikir bii mu la jàngal allahuma ij'alni min a'zami ibadika indaka hazza e yàlla yàlla nañ ma def ci ñi nga xam ne ñoo gën a màgg ci say jaam ci yow ci cër boo leen cëral mi ngi noonu wa nasiban loolu it ab cër la rek la nga xam ne sédd nga leen ko fi kulli xayrin tuqsimuhu fi hadha al yawm ci bépp yiw booy tasaare ci bisub tey bi wa fi ma baada ak la ca gannaawam min nuurin tahdi bihi ci leer goy jubalaate aw rahmatin tanshuruha walla yërmaande booy tasaare aw rizqin tabsutuhu walla wërsëg booy tàllal aw durrin takshifuhu wala lor goy teggi aw zanbin taxfiruhu wala bakkaar booy jéggali aw shiddatin tadfa'uha wala tartar boo xam ne da nga koy jëñ di ko delloo gannaaw aw fitnatin tasrifuha wala bépp fitna booy féewali ak kala neex aw mu'afatin wala boog la nga xam ne mooy ak jàmmal tamunn biha bi rahmatika nga xam ne yaa koy baaxe ci sa yërmaande innaka ala kulli shay'in qadir yow yaay ki am kattan ci lépp naam mbokk ñaan gi wax na ko fii ne soloon nañ ko waaye bokk na ci lu ay borom xam-xam di wax lii ibnu omar moo ko doon ñaan waaye du ñaanuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awalan nañ xam ni jullit bu nekk am nga droit créer say ñaan fii ak ñaan ba shirk nekku ca fii ak ñaan ba bàkkaar nekku ca suñu borom mu ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen moom mooy leen kon lépp loo xam ne jàpp nga ne dana la jëriñ adduna ak allaaxira wala muy jëriñ kenn ci jaamu yàlla allah adduna ak allaaxira wala di lor loolee dara nekkul ci nga ñaan ko sa borom subhanahu wa taala amma ñaan ya dëppook ñaani yonent bi nag loolu day nekk moom paaka ñaari boor te mooy yooyu moo gën a barkeel roy ga ngay roy yonent bi tuyaabala mi ngi noonu ala kulli xaal ñaan gi ibnu omar bu dee na ci moom la jóge it ñaan gu am solo la mooy suñu borom mooy séddale ay cëram nga ñaan yàlla la muy séddale ci bisub tey bi yàlla na la ko jox la gën la gën a màgg yàlla mooy indi ak leeram di ci jubal ku ko neex yàlla yàlla nag ñu jubale ci sa leer sa yërmaande gi ngay tàllal yàlla yàlla nag ñu ca boole wërsëg wi ngay séddale yàlla nag ñu ca jox teggal ñu tiis yi baal ñu bàkkaar yi ah bépp jàmmal booy indi it yàlla nag ñu ca jox loolee ndax yaay kam kàttan ci lépp lii tamit ak ñaan la goo xam ni ñaan bu am solo la mi ngi noonu su dee da nga xool téere bi ñu jël beneen bind wa min du'aa'ihi alayhi salaam bokkoon na cay ñaan yàlla na mu ci nekk ca moom inda nawm ci heure bu daan nelaw annahu kaana yada'u yadahu al-yumna taxta xaddihi al-ayman da daan def loxo ndey jooram ca suufu lexub ndey jooram da daan def loxo ndey jooram suufu lexub ndey jooram wal yusra ala faxidihi al aysar lii di loxo càmmooñ ba mu teg ko ca pooju càmmooñam ba suma yaqul allahuma bismika wadatu janbi ey yàlla ci sa tur day laa tege sama wet gi wa bismika arfa'uhu ci sa turit laa koy yëkkati allahuma in amsakta nafsi faxfir laha ey yàlla boo jëlee sama bakkan yàlla na nga ko jéggal wa in arsaltaha su dee ne nag da nga koo delloo fahfazha yàlla na nga ko wattu bima tahfazu bihi salihin min ibadik ca la nga xam ne da nga ko wattoo ña baax ci say jaam na am mbokk lii benn ñaan la goo xam ne tamit wax na ko ne jullit heure booy tëdd da ngaa war a tëdd sa loxo ndeyjoor gegganoo sa loxo ndeyjoor xam ngeen ni ndeyjoor mooy la gën ci lu doomu aadama di commencé lu nekk nit ki buñ koy dugal xabru ci côté ndeyjoor lañ koy tëralee soo demee ba sonn it man ngaa wëlbati ko côté càmmooñ man ngaa jaaxaan islam benn position rek lay tere muy defeenu ndax loolu mooy tëdduwaayu waa sawara dañuy dëpp seeni kanam ci sawara looloo tax defeenu rek lañ la tere gannaaw boobu dana wax ne ay yàlla yàlla day ci saw tur te mooy maa ngi def maa ngi tëdd bismillah ñu ngi noonu bismillah loolu it moo tax ba julit booy tëdd nga wax bismillah booy jógit nga wax bismillah ci sa tur laa tëddee ci sa tur laa jóge yàlla nelaw yii ma fas yéene nelaw bu dee da nga ciy jël sama bakkan yàlla na nga yëram bakkan bi te mbokk julit ana ñaata doomu aadama ñoo dee ci seeni nelaw loolee kenn xamul nu ñu toll ñu bari da ngay gis seen biri nelaw la ñu amee ay cardiaque am ay tension dee ci seen nelaw mu ne bu dee it da nga maa delloo sag ruux ay yàlla yàlla na nga ko wattu ni ngay wattoo sa jaam yu baax yi te it mbokk suñu borom mu ne allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha walati lam tamut fi manamiha fa yumsiku lati qada alayha al mawta wa yursilu al uxra ila ajalin musamma doomu aadama yi mu yàlla mooy jël suñu ruux suñu nelaw yàlla mooy jël sa ruux doonte na jël ba du jëlu teqali ko ak jëmm ji waaye nag mën na koo da ngay gis doomu aadama day nelaw gis koo xam ne nii mbokkam la bu dee woon depuis vingt ans mu ànd ak moom wax doomu aadama day nelaw gis ay mbir toog lu yàgg nam ko gis woon ci gént gi mu gis ko loolu kon yàlla moo jël ak ruux di ko woon lu ko neex bu dee da nga koo jël ma dee yàlla yàlla nag ma yërëm boo ma ko delloo nag te yonent bi bu ma san yeewu ci nelawam bokk na ci ay zikram alhamdulillahi lazi radda alayhi ruuxi wa afaani fi jasadi wa azina li fi zikri maa ngi sant yàlla mi ma delloo sa ak ruux mi ngi noonu musal ma may ma kattan ma mën ko di tudd daana waxit alhamdulillahi lazi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur ngi sant yàlla mi ñuy dekkal gannaaw ba mu ñu rey ci ci moom la ñuy dellu loolu kon ci ñaan yi ñuy ñaan la avant ñuy tëdd avant ñuy dem di buñ tëddee bala ñu nelaw bokk na ci loolu mbokk jullit ba tey bu dee da nga jël beneen bind mu ne allahuma inni aslamtu nafsi ilayk ay yàlla maa ngi jébbal sama bakkan ci yow walja'tu zahri ilayk maa ngi làq sama gannaaw ci yow wa fawwattu amri ilayk maa ngi dénk sama mbir yépp di ko delloo ci yow wa wajjahtu wajhi ilayk maa ngi jubal sama kanam jëme ci yow rëhbatan minka wa rëhbatan ilayk di tiit ci lu jóge ci yow ci mbugal waaye di xemmem jëm ci yow ca la nga xam ne mooy say xéewal laa man jaa wala malja'a minka illa ilayk amul benn muccuwaay wala benn làquwaay ci yow ay kenn mun mucc wala làqu fenn bu mucc yàlla illa ilayk xanaa ku daw làqu ci yow astaghfiruka wa atubu ilayk maa ngi lay jéggulu te di tuub jëm ci yow amantu bi kitaabika allazi anzalta gëm naa day téere bi nga xam ne yaa ko wàcce wa bi nabiyika allazi arsalta ak yonent bi nga xam ne yaa ko yónni faxfir lii ma qaddamtu wa ma axartu jéggal ma la ma jiitaloon ak la ma yéexe ci ay bakkaar wa ma asrartu wa ma alantu ak la nga xam ne nëbb naa ko ak la nga xam ne siiwal naa ko anta ilaahi yaay sama yàlla bi may jaamu laa ilaha illa ant kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul yow rabbi qini azabak ay yàlla yal na nga musal sa mbugal yawma tabaasu ibadak bis bi ngay dékkal say jaam mi ngi noonu waaw ñaan gi bokk na saxaaba bi ko nettali albara ibnu azib moom la ko yonent bi alayhi salaam jàngaloon doonte ne ne am na quelque baat yu mu ca dolli waaye boo demee ci téere sunna yi gën naa siiwee ca wax ju jëkk ja te bokk na ci loolu mbokk booy tëdd nga ne yàlla maa ngi jébbal sama bakkan ci yow di laq sama gannaaw ci yow sama mbir yépp maa ngi koy delloo ci yow yàlla yow suñu borom sama kanam maa ngi koy jëmal ci yow maa ngi ragal loolu say mbugal waaye di xemmeem loolu say xéewal yàlla xam naa ne kenn mënul daw ba raw kenn mënul daw ba làqu ba mucc ci yow xanaa lu dul ko daw làqu ji ci yow mi ngi noonu maa ngi lay jéggalu di di tub dellu ci yow di gëm sa téere bi nga wàcce gëm yonent bi nga yónni baal ma la ma jiital ak la ma mujjal ak la ma yeexee ak la may nëbb ak la ma feeñal yaay sama boroom bi may jaamu amul kenn ko yeyoo ñu koy jaamu ko dul yow yàlla na nga musal sa mbugal ci bis boo xamee ne nii da ngay dëkkal say jaam waaw loolu wax na ko mbokk ci wàllu askaaru nawm doon te ne nii soo dellu woon ci yeneen téere sunna yi gën nañ ko yaatal bokk na ci loolu jullit bi boo tëddee nga jàng ayatul kursi soo ko jàngee seytaane du la jege ba baa ngay xëy bokk na ci loolu it ngay dajale say loxo ëf jàng ci qul huwallahu ahad qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas nga raay sa yaram yépp nga def ko ñetti yoon ñu ngi noonu ñetti yoon bokk na ci it mooy nga wax subhanallah alhamdulillah allahu akbar bu ne nga def ko 33 fois allahu akbar ba nga def ko moom 34 su ko defee muy téeméeru zikr yii yépp da ngay gis ne zikr yu am solo la lu aju ci wàllu askar ya ñuy def heure boo xam ne dañoo tëdd suñu kaw lal mi ngi noonu donte ne moom yii la ci tënk foofu la yemele zikru tëdd incha allah bala ñu dem ci yeneen askar yi ñu xool ndax mbokk yi amuñu ci lenn loo xam ne doon nañ ko bëgg a laaj ci loolu incha allah naam naam ndax nu ñuy taftalee zikru la nga xam ne mooy zikru nawm loolee da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisuñu mu ne na ngeen wax lii doog a wax lii askar yi ci rot bari na lii ma leen ci wax gannaaw bi borom téere bi wax am na yeneen askar su ko defee yow yaay xool askar yooyu yépp rek nga def ko ala kulli xaal bokk nañ ci askar yooyu mooy booy tëdd sa kaw lal nga wax bismillah alhamdulillah alladi at'amani wa saqani wa kafani wa awani fa kam mimman la kaafiya lahu wala mawa wala wala mawa yooyu yépp mbokk ay askar la su ko defee ya nga jàpp ne lii de yonent bi digle na ko ca digle ca ay tuyaaba yu rëy yooyu da ngay gis ne mooy lay gën a nekk ay priorité rawatina alquran ba ayatul kursi xul walaa wax ñetti yoon xul bi falax ñetti yoon xul bi naas ñetti yoon loolu ma leen wax ci askar ci subhanallah alhamdulilah allah akbar asu salaa sallam nee na képp koo xamee ne nii da nga ko def tuyaaba ji ciy juddoo waxoon na ali ak fatima moo leen gënal fuuf ab jàmm bu ñëw di leen di liggéeyal amma lii mu mujj wax moom lii moom ñëw na ci xadiisu bara ibnu azib ne moom ngay mujj a wax soo defee say askar ba pare la ngay mujj a wax mooy lii allahuma inni aslamtu nafsi ilayka ba baa nga yëgsi ci laa ilaha illa ant yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne wax ni lii bala muy nelaw boo dee mi ngi dee ci fitra te képp ku dee ci fitra mooy tawhid du sell boo dekkee àddina nga jëm loolee kon la ñu mën a wax ci loolu wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal la nga xamee ne nii mooy gën a not ci liñ doon nettali ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka yooyu Aïcha nettalee ci loolu ma daan wax mu daan raay ci kaw kana yaramam ak xadisu barak ak yu demee noonu yépp mi ngi gën a jéng ci doomu aadama bi buy nelaw guddi loolu ca la gën a jéng doomu aadama bi bu dee da ngay nelaw guddi donte ne ne azkar la ay ngëneel la su doon da ngay nelaw bëccëg def ko it da ngay gis ne ba tey nekk na lu baax wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah ala kulli xaal rasul sallallahu alayhi wasallam dana wax naan na nga loolu na mujj ci li ngay wax ci xadisu baraa ba loolu it da ngay gis ne bokk na ci boo ko waxee ba pare ca la nga xamee ni ni moom mooy ngëneel soo ko mënee nga daal di koy baamuwaat ndax la yonent bi nee na doon ci la ngay mujj a wax la ci gën a am solo ca askar boobi mooy la muy wax laa ilaha illa ant ca wax nañ leen sànq ne rasul sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne la nga mujj a wax mooy laa ilaha illa allah boo dee àjjana nga jëm te laa ilaha illa anta mooy laa ilaha illa allah mooy yàlla ngay waxal kon mi ngi noon askar yooyu benn la wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah askaru nawmu ñi ngi ko yoonal bi nga toogee sa lal loola tax yonent bi alayhi salaam la waxoon Fatima ak Ali su ngeen demee ba jàpp seen toogu seen seen seen tëdduwaay te mooy fi nga toog sa lal ngay def say askar gannaaw ba nag daal di géggandoo sa la nga xamee ne nii mooy loxo ndeyjoor ñaan ñaan gu mujj gi allahuma loolu tegtal bañ cay joxe it mooy ngir bañ seytaane yóbbaale la ba nga nelaw sa askar yi du mat loolu moo tax waaye bu la neexee tëdd def ko bu la neexee toog def ko waaye daal fa nga ñëwee ne bismillah toog rek def say askar tëdd loolu mooy la nga xam ne mooy la gën wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal kon ñu jël beneen bind kon mu ni wa mimma ruwiya fi du'aa'i inda alxuruji min almanzil bokk na lañu solo ci ñaan ga ngay ñaan heure booy génn sa kër allahuma inni a'udhu bik ay yàlla maa ngi laqu ci yow an adilla ci may nekk di réer aw udalla wala ñu may réeral aw azilla wala may tarxiis aw uzalla wala ñu may tarxiisloo ay tarxiis yoonu yàlla aw azlima wala may tooñ aw uzlama wala ñu may tooñ aw ajhala wala may yóbbu kenn ci ak réer di def ak réer jëm ci kenn aw yujhala alayya wala kenn di jëm ak réer jëm ci man wa ruya fi dubri kulli salaat naam wala boog lu jiitu loolu day wax ne nit ki génn këram bokk na ci ñaan ya ngay war a ñaan mooy yàlla maa ngi làqu jëm ci yow ci may doon koo xam ne damay réer réer goo xam ne maa ko sababal sama bopp wala ma dajee kenn ku muy réeral te it loolu moo ëpp ci doomu aadama yi tey li ëpp ci doomu aadama yi ñeneen ñoo leen réeral ngir seen intérêt bopp yàlla yaa ngi na musal may tarxiis ci yoonu yàlla gis ngeen sunu bay aadama ba ko borom bi teree garab ba seytaane daa ñëw fa azallahuma seytaan anha seytaane moo leen tarxiisloo ci ndigalu yàlla yi bañ bàyyi ko dem lekk garab ga kon yàlla yàlla na nga musal may tarxiisal sama bopp wala keneen di ma yóbbu ci may tarxiis bay wàcc saw yoon yàlla yàlla na nga ma musal may tooñ kenn ci jaami yàlla yi waaye yàlla na nga ma musal ci kenn di ma tooñ te yàlla yàlla na nga musal may def al jëhl la doon ci wax la wala ci jëf la yoo xam ne nii jaaduwul ma koy jëmale ci kenn wala keneen di ko def ci man wala yonente bi alayhi salaam ne kenn ceen bu wooree fala yasxab wala yajhal ila axir moo mi ngi noonu lii kon da ngay gis ab ñaan la gu mu joxe donte ne it yàgg ngeen dégg jullitit buy génn këram dafa war a wax bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi génn ci turu yàlla maa ngi wikk sama mbir yépp ci yàlla kenn amul pexe kattan ku dul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo ko defee seytaane benn du la mën a dogaale ci dara bal dañuy terente sax ne kii xamal ne mënuloo ko dara loolee kon ci ay ñaan la soo demee am na ci yeneen ñaan yu dul yi masalan lu mel ni allahuma ahfazni min bayni yadayya wa min xalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa audu bi azamatika an uqtala min taxti mi ngi noonu yàlla yàlla nag ma sàmm sama kanam sama gannaaw sama ndeyjoor sama càmmoñ sama kaw maa ngi lay musal ci benn mbir di ma bette ci sama suuf loolee kon ay ñaan la yu gë yu jëm ci booy génn sa kër suñu jël beneen bind mu ne wa ruya fi duburi kulli salaa soloo nañu ci gannaaw bépp julli an yusabbiha allaha thalathan wa thalathin mooy nga sabbal yàlla 33 fois wa yukabbir allaha thalathan wa thalathin nga màggal yàlla 33 fois wa yahmad allaha thalathan wa thalathin nga sant yàlla 33 fois wa yaxtimal mi'ata bi la ilaha illa allah nga matal téeméer ba ci wax la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah moom dong amul kenn ko bokkal dara lahul mulk wa lahul hamd ñeel na ko nguur yépp moomeel gépp ñeel na ko cant yépp wa huwa ala kulli shay'in qadir ca mooy ki am kattan ci lépp lu mën a doon na am mbokk fii day wax ni solo nañu wante ne ni boo dellu woon ci ulamawul xadis d'accorduñ ci loolu boo déggee ñu ne ruuya mooy wax la joo xame amoo ca tegtal yu leer te mooy ay xadis yoo xam ne tegtal bu dëgër amu ca waaye li muy nettali nii rot na fi saxiixayni ci buxaari muslim yépp ñu soloo ko te mooy faqir yi muhaajiruun yi ñoo ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam na ko waaw suñu mbokk borom alal yi ñoom gañe nañ ñu ñaari yoon yonent bi waaw loolu lu mu mën a demee mu ne ah ñoom ñi nga ànd ak ñoom ci jaamu yàlla yi duñu leen jiitu ci dara te loolu it mbokk ak a jafe ak a jafe gis waa ju ñuy jiiñ ne am na alal kenn du ko jiitu jàkk kenn du ko ëpp njàngum alxuraan kenn du ko ëpp kii ak a jafe waaye mu ne ñoom ñi ngi ko ànd di ko def ak ñun muy benn ba pare ñoom ñi ngi yor seen alal bés bu ne ñu ngi sarxe bés bu ne ñu ngi dépense ci jihaad bés bu ne ñu ngi ila axiri yonent bi sam ne kaay ma wax leen loo xam ne su ngeen koy def amul kenn ko mën a def lenn lu dul ne yéen yéen a koy raw mi ngi noonu loolee jàngal leen askar yooyu fuqaraaw yu commencé buñ jullee ba pare ku ne beru sa roq di ko def mu ji borom alal yi caamin yi fexe gëstu ba xam ne lii kat ñii lii la ñuy def ñoom it ñu commencé waat di ko def faqir yi ñëwaat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah lan ñu déeyoon kot gaa yi dégg nañu ko de ñoom ñu ngi koy def yonente bi alayhi salaam ne leen hey zalika fadlullah yutihi man yasha loolu ngëneelu yàlla la yàlla koy jox ko ko neex te it naam ngëneelu yàlla la mbokk julit yàlla may la adduna nga jekk ko ba pare doxul sa digganteeg jaamu yàlla yi nga noonu ngëneelu yàlla la yàlla koy may ko neex loolee kon ñu bañ koo sàggane yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na kiy def lii ay bàkkaaram buñ tolloon ne puuruti géej mooy gis ngeen géej dafay nekk ci puurit ay bàkkaaram buñ tolloon ne puuruti géej yàlla baal ko ko allahuma lu dul mbokku seytaane bokk na ci ay kombaam fexe la ba fàtte loolu lu baax soo demee ba tëg ko ci nag mu fexe ba yàqal la ko dañuy gis ñoo xam ne fi ñu sëlmale seen baaraam yi comme machine bu ñaw indi mi ñu daal di koy kii dem déedéet mbokk julit da ngay sabbal yàlla di bàkk yàlla di sant yàlla da nga koo war a teeylu teeylu bu rafet imma subhanallah subhanallah subhanallah ba 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba 33 allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba 33 wala boog bu la neexee boole ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar heure bu amee 33 nga xam ne yépp mat na loolu mooy askar yooyu nga tëje ko nag laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ñëw na ci yeneen riwaaya yoo xam ne fukk fukk rek la su ko defee commerçant bi yàkkam te mën naa yim fukk rek mooy am na yonente bi alayhi ne ne kenn ci yéen bu doon heure bu jullee ba pare wax subhanallah fukki yoon alhamdulilah fukki yoon allah akbar fukki yoon mu ne loolu 30 la cinq prières yi de 150 ñu bind ko ci yàlla 1500 si mu ne 30 la waaye 150 la 5 prières yi ñu def ko ci yàlla 1500 loolee ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag bu doonte ne yow da nga koy def 33 33 loolee day nekk 165 azkar yoo xamee ne nii da nga ko def 33 bi 165 alhamdulilah 165 allahu akbar 165 xoolal loolu nag buñ ko multiplier yootee par dix kenn xamul nu mu toll am na beneen façon it boo xam ne mooy subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar su boobaa moom da nga ciy dolli la ilaha illallah waaye vingt cinq nga koy def vingt cinq vingt cinq loolu it ñëw na ñett yooyu yëpp ñëw na ci duburo sala subhanallah alhamdulillah allahu akbar dix dix subhanallah alhamdulillah allahu akbar trente trois trente trois subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar vingt cinq vingt cinq yooyu yëpp da ngay gis ni ñëw na ci la nga xam ne mooy askar duburo sala donte la it comme ni ngeen ko xamee lañ leen waxoon ci ayatul kursi bi loolu it ñëw na ci xadisu nasaa'i mu ne koo xam ne heure bu jullee ba pare tere ayatul kursi da ngay gis ni da ngay boo dee da ngay tabbi aljanna ñëw na it ci la nga xam ne mooy yonent bi sam daana digle jàng leen mu awizaat waxtu wi ngeen jullee ba pare te mooy foo sëlmale jàngal qul walaahu ahad qul adrul fala qul adrul binnaas lii moom ba tey ci askar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon doon jàngale la loolu kon mbokk lay wax ci ci wàllu googi ñu jël bind bu mujj bii rek bu gàtt bi nga yaakaar na waxtu bi jot na mu ne wa inda alxalaa'i taqul boo jëmee ca wanag wanag waxal way boo génnee ca wanag wo la ci jublu alhamdulillahi lazi razaqani lazata maa ngi sant yàlla mi ma wërsëgal lii di xéewalam xéewal ga ànd ak bànneex wa axraja an ni mashaqata daa di teggi ci man la nga xam ne moom mooy lor ga nekkoon ca ñam wa wa abqa fi jismi quwata daa di desal ci sama jëmm ji la nga xam ne mooy kattan ga bawoo ca ñam wa mbokk comme ni ngeen xamee diine rek mooy jàngale doomu aadama booy lekk li ngay wax booy dem douche li ngay wax demal ci militaires yi demal ci politiciens yi demal ci sportif yi amul kenn ku ci am programme boobu amma julit mooy kiy tudd yàlla di fàttaliku yàlla fu mu mën a toll xatta booy dem wanag xatta booy dem wanag doo fàtte sa borom loolu tax moom indi ni fii askaaru génn wanag waaye nag moo ko xam leen ne askaaru dugg wanag mooy bismillah allahuma inni auzu bika min alxubsi walxabaais ay yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci seytaane yu góor yi ak seytaane yu jigéen yi seytaane place su sobe mooy fa ko gën a neex donc fu ñu dem ci douche yi la ñuy dëkk yàlla yàlla nag ma musal ci seytaane yu góor yi ak seytaane yu jigéen yi soo génnee it bokk na ñaan gu gàtt mooy xufraanak yàlla yàlla nag ma jéggal amma ñëw na ci yenn ci ay riwaaya mooy ñaan gi mu wax ni mooy boo demee wanag ba pare na doon da nga loo fa mën a def boo génnee nga ne yàlla maa ngi sant yàlla mi ma wërsëgal bànneexu ñam wi ndax moo ko xam ngeen ni ñam avant muy nekk force bànneex la maa dama da ngay tànn ñam bu neex nga lekk ko loole yàlla may la wërsëg bi te xamal ne mbokk jullit am na ñoo xamee ne nii seen làmmiñ dara du ko saf bu ñu mëqoon suuf ak ñu mëq lem moo yem ci ñoom kon bu la yàlla mayee ngay lekk muy neex ca làmmiñ ba ca put ba loolu dañ ci war a sant yàlla loolu kon yàlla may na la xéewalu lekk gi muy benn suñu boroom defal ci yow benn machine complet boo xam ne amul courant amul batterie mooy jël ñam boobu segg ko la nga xam ne moo cee jëriñ yaram bi mu transformé ko def ko direct mu jëriñ yaram bi yépp la cay ay déchets mu dajaleel la ko yóbbu ko ca fa nga xamee ni nii mooy génn waa yëpp mu génn fa kon bi nga demee ca wanag wa génne déchets ya nga sant yàlla mi la may déchets yooyu génn waaye ba pare it yàlla bàyyil la kattan gi xam ngeen doomu aadama li ngay lekk la ngay génne du mat sax ceeram la ca des yépp yàlla nga ko bàyyi mu nekk benn énergie boo xam ne nii ci sa yaram la loolee kon nga war caa sant sa boroom mbokk kon zikrullah mi ngi noonu fa nga tëdd salal fa nga nekk ca jàkka ja fa nga demee ci ci douche ba foo mën a nekk jullit dafa war a ànd ak zikrillah moo tax suñu borom waxoon ci tafsir buñ mujj a def wa zakirina allaha kasiran wa zakirat aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima yal nañu yàlla jàppale bañ koy fàttaliku fu ñu mën a toll di ko sant fu ñu mën a toll di ko jaamu jaamu gu sell wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain dafa jël xaalis mu daal di koy jël tekke ko jabar ndax sëy boobu nekk na sëy boo xam ne sëy bu baax la ala kulli xaal maadaama moom joxe na la nga xam ne mooy ak canam ut nañ ay seede may nañ ko soxna sëy bi moom dañ naan sëy bi baax na allahuma lu dul bakkaar bu bon boo xam ni def na ko muy sàcc googee mu des leneen dafa am lu baax ak lu barkeel mbokk ndax sëy bu mel noonu yaakaar ngeen yàlla barkeel ko déedéet loolu yaakaaruñu yàlla barkeel ko su ko defee daal maadaama moom indi na xaalis daa di joxe can dañ naan sëy bi baax na ñaka may jabar nag bu ñu xamoon ne xaalisub jaambur la amuñu droit jël ko te it tamit dafa am différence entre xaalis bu xaraam ak xaalisu jaambur xaalis bi xaraam waa ji carte jaay sangaram indi xaalis dañ naan xaalis bi moo ko moom ci la tekkee jabar jox na la ko loolu dagan na yow nga jël ko amma xaalisu jaambur mu jël ko boo ko xamee amoo droit di ko jël kon ñooñu ko may jabar ñoom bu dee xamuñu ne da ko sàcc seen yoon niwut ci sëy bi buñ ko fasee baax na waaye nag yaakaaruñu yàlla def ca barke de e da gannaaw ba it bàkkaarub sàcc ba moom mi ngi koy topp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam lu mel noonu ci ñiy topp tontu jàkka ji yaakaar naa ne talaata bi passé amoon na ci ki laaj waa ji nga xam ne dafa dem al jël alalu riba dem aj ci makka ndax aj ga day baax ak du baax al muhim daal ñu bàyyi xel ci ne jullit war nga def lépp lu sell ndax mbir mën na baax ci bëtu attekatub sharia bi waaye ca yàlla moom dafay doon loo xamee ne nii musiba la bakkaar la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw waaw waaw dubura salaam mooy gannaaw ba nga sëlmalee am na lu ñuy tudde dubura sola mooy gannaaw julli loolee borom xam-xam yi dañ koy firi ci ñaari mbir dubura sola mooy fi julli gi di jeexe ak dubura sola gannaaw ba nga sëlmali loolu moo tax am na yenn askar yu yonent bi jàngale ndax dubura sola na doon muslu ci azabul qabr ak nangam yooyee ci biir julli gi lañ ko def ci fin julli gi mi ngi noonu loolu day am ca langue yëpp loolu su doon te da ngaa jël ki nga ne tegal ma lii ci gannaaw fas wi gannaaw fas bi waa ji ñëw yëkkati ko teg ko ci kaw ci ci ci gannaaw fas gi dañ naan teg na ko ci gannaaw fas gi su demoon ba ca gannaaw mu teg ko fii dañ naan teg na ci gannaaw fas gi loolu mooy dubur amma nag bu ñu nee dubur asalaam moom kooku mu amul benn ishkaal mooy da ngay sëlmal ba pare doo nga def askar yooyu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam ñu jox ñu ñu laajagul bisimilah waaw waaleykum salaam waaw doomu aadama yi booy génn sa kër ngay wax la ngay wax néeg bi moom kër gi moom nit ñi dañ ñoo ko bokk kër la ñuy waxee askaaru dugg kër ak askaaru génn kër kër lañ koy wax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaw voilà waaw naam alaakulli xaal loolu nañu xam ne ngëneel la nañu xam ne ngëneel la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax nit ki nga xam ne dafa tëdd ak laab day tëdd ñu koy jéggi loolu am na ci yeneen riwaaya yàlla dana ko booleeg malaaka fu mu wëlbati ko mu ñaanal ko loolu nag ngëneel la boo xamee ne nii dañ koy war a def su dee ne da ngaa ragal ne ndox mi sedd na sedd la boo xam ne bu lay lor dara nekkul ci nga tiim nga tiim yonent su ne ay senee na yonent bi alayhi salaam daana jàpp di tëdd loolu lu ëppoon la mu daan def su ma saan nekk di tayel wala nganta am da daan tiim ci miir bi donte na ñoom seen miir miiru ban la daan doon kon mënees na jàpp tëdd loolu mooy la gën a matale gën a complet su dee ne ngantaam na nag nga tiim julli donte na njàpp boobu it yeewu bi ngay nga tiim daal di pour tëdd donte na njàpp boobu yeewu ba nga yeewu ci guddi gi di tuur ndox loolu du ko yàq jëmmi ja jàpp bi rek mooy jaamu yàlla loolu tax borom xam yow mi ànd ak janaba sax sangoogoo janaba dañ laa yoonal nga jàpp bal borom xam-xam yi dañ cay dolli ni jigéen bu ànd ak règle sax mën naa jàpp jàpp boobee comme na borom re korom janaba bi di ko jàppee ndax jàpp jaamu yàlla la du jàpp bu naan daf lay permettre leneen lu dul loolu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw waaw xanaa kon ñu mujj ci mbokk bi rek comme mbokk ñu priorité ñi laajagul ñu mujj ci mbokk bi rek après yi ci des ñu bay bi beneen incha allah bisimilah waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu ndax diis ayatul kursi gannaaw takkusaan loolu loolu wéerul yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalewul loolu yonent bi lim jàngale mooy jàng ayatul kursi gannaaw julli gu nekk jàng ayatul kursi heure booy tëdd lii la ñu xam ci jàngaleeg ayatul kursi wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk julit waaw sëñ bi yow fii jàkk ji nga bokk di waaw waaw bisimilah waaw waxal waaw waaw aha kay heure bu heure boo fàttee def benn azkar fa nga fàttali koo rek nga koy defee zikr bi gën a màgg ci zikr yi mooy julli suñu borom mu ne aqimi salaata li zikr yi su ko defee kon waa ja nga xam ne nii ba muy dugg ca jàkka ja waxul la nga xam ne mooy bismillah allahuma iftah li abwaaba rahmatika soo demoon bay waaj a génn nit waxal zikru dugg jàkka gannaaw bi it booy génn jàkka ja waxal bismillah allahuma inna asaluka min fadlik loolee mi ngi noonu loolu la ñuy wax ci mboolem azkaar yi lekk yaag douche yaag lu mu mën a doon wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain